fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen di boole juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow rek ci kuñ teewal ab digam mu wara a bàyyeekoo fi ci aduna jëm barsak waxon na la ca dembu lu bari lu jëm ci ay denkande muy testament yi mu wara def asa ginko ko wara sabatu sede bi bañ ko wax waxal tay wax ak jang suratu yasin ca bop ba mu xoyofal demam gi ak dim wara dalale xalam ak lepp lo xamene ni hajuna ci yoy waxon na ci ak yow dama lay wax nak yi nga xam ne sunnaal nañ ko ci ab jullit gannaaw bi nga xamee ne ni génn àdduna sunna yooya bokk na ci koo xamee ne nii dafa dem ba bëgg génn àdduna wala moom ci boppam génn àdduna sax bëgg nañ ñi gëmmal ñaari bëtam ya ndax rooxu googu dafay dafay topp bët ya bu rooxu ga génnee rek bët ya tamit dafay buqee ko ànd ak moom moo tax yonentu bi sallallahu alayhi di wax ne ida xadartum mawtaakum fa axmidul basara fa inna al basara yatbau ruux wa qulu xayran fa innahu yuminu ala ma qaala ahlul bayti ahlul mayti mu ne bu ngeen teewetee koo xam ne dafa génn àdduna ba di yëbbu xeeku na ngeen ko sëlëm delloo ko ndax ruuxu gi dafay toll dafay topp bu xeeku bu xeeku topp ruuxu ga wax leen ci moom yiw ndax mom lañ wax dana ko gëm wa niw ba lañ wax dafa koy gëm su ko defé kon nak bu namé nan bu dee dafay buqeeku top roxu ga fa mu tollu di sukuraté ci lañ koy wanee plan wu fa muy wara dëkk ëllëg bët ya nag mën mu koy xol di ko diko di ba bu ñuy mocc roxu ga sax du ko yek su nekké di abdulit kon nag ku génnati àdduna bu leen bàyyi bëtam ya mu buqeeku noona waaye dañoo war a sëlëm ko delloohaat bët ya ci ni meloon ke cosaan la umu salmata mu ne yonentu bi dafa ñëw ci abi salmata fekk na booba bët yaa nga buqeeku yonentu bi gëmmal ko tabaarakallaahu bi ko yonentu bi gëmmalee ci bëtam yu buqeeku yooya kàddu ya nag ndeysaan commencé yëkkatiku ci ay yuuxu نيغي داك جاخلي لول فصيح ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير ان الله يونت بينا بولين بولين نيان بولين واخ لودول هيو دغا سوكو ديفه ناك ا تي لي نين واخ واخ لين ريك اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه yonent bi ne bu leen wax lu bon wax leen lu baax rek malaaka yi dañuy gëm li ngeen di wax wax leen ne yow yàlla yàlla nga jéggal abi salmata yàlla nga yëkkati darajaam yàlla nga ko huutu ci njabootam yàlla nga jéggal ñu yow mi borom mbindéef yi yàlla nga yaatal bàmmeelam yàlla nga ko leeral kon lii la ñuy war di ñaan waaye nag nit ki booy gëmmal bëtam tamit dafa am looy wax da ngay wax ne bisimillahi wa ala millati rasulillahi loolu ngay wax ne allahuma yassir alayhi amrahu wa sahil alayhi ma baadahu wa asidhu bi liqaika wajal ma xaraja ilayhi xayran mimma xaraja anhu mu ne waxal ni ci turu yàlla wi ak ci yoonu yonantu bi yow yàlla yàlla nga yombal ay mbiram yàlla nga jàppandal la nekk gannaawam yàlla nga texeel ci moom sag dajeeg moom yàlla nga ko def lim génn jëm gënal ko fi mu génn baxee ko su ko defee tamit yaxi sikkiñam ya dafay xubbeeku mel ni ku xawoon a bébbali noonu mu takk dañoo bëgg nga takkaat ko boole ko ba mu dëgër ñetteel bi ay cëram sofe sofe ya muy cëram ya dafay laccaxu dañoo bëgg na maanaam nga nooyal ko ci loo koy loo koy loo jaarale sa loxo lii nga def ko siddéem mu gën a dëgër mooy daal wa yustahabu tal taliinu mafasilihi taliinu mafasilihi su ko defee nag foofa dafay nekk lu dëgër moo tax yooyu yëpp su boobaa bëgg nañ ko maanaam ñi ko koy defal danañ bëgg tamit ala haal nooyal cëram ya takk tànk ya takk tamit ay luppam xam loo xam ne danga koy teg ca biir ba lu xaw a diis li ne woon ci biiram génn ñeenteel bi sopp nañu yëreem yi mu soloon nañ ko summi bëgg nañ tamit ñi wàccee ko ca lal bi mu tëddoon donte moo ko jëndoon bëgg nañ tamit ñi may ko asi waxtu ay waxtu yoo xam ne jege ñaale bi danañ mën a jege si ñëw man koo gis su ko defee ñi waajal ko sangu ko su ko defee sang ko yóbbu ko ca jàkka ja seede ko man koo jullee ñu wutal ko nag càngaay goo xam ne dana mën a suturaal yaramam wa yëpp loolu yëpp bëgg nañ ko buñ ki génnee àdduna bëgg nañ tamit buñ ko teegalee di ko seede ku xam ci moom lu baax man nga koo wax waaye bul sos nag ku fi yàgg yàggee fi rek lim fi yàggee ci lu baax nga wax ko safaan ba nga noppi ca su ko defee yàlla ko baax la moo tax mu may yonantu bi promotion wu ay néewam ñi leen di seede waaye yàlla xam lépp seede yàlla rek ko moo tax mu ne wa kafaa billaahi shahiidan ndax seede ki ko man mooy koo xam ne foo dugg mu dugg fa loo def mu xam ko waaye ki la bëgg a seede te léeg-léeg mu dugg foo dugg léeg-léeg mu wax loo déggul kooku mënu seede yàlla fa bëgg nga texe rek moo tax bu gaa yi seedee ba seedee pare yàlla ne ah banaa li ma xam danaa ko xàtte ci li ngeen xam su ko defee bu ko ci àttee rek mu dem aljana te loolu xeetu yonantu bi rek ñoo ko jagoo waaye néew yi jiitu woon xeetu yonantu bi amuñu woon ku leen seede amuñu woon sax jullee néew waaye lii lépp ay promotion la yàlla defal xeetu yonantu bi ñi xam cangaay gaad nga ci mboolem tilim tilim yu nekk suñ bàkkaar yi mu far ñi xam yala gu bees gaad nga ci yàlla beesal suñuy mbir ñi xami gaad nga ci yàlla dëgg ca xatte ñu ña xam ak jullee gaad nga ci lépp lu manqué woon suñu jëf mu yokk ko lu ca damoon tamit jullee léegi jàng ko may ñu tamit ñuy ñaanalante gannaaw ci wàllu njaale loola lépp ay xéewal la yoo xam ne kenn xamut ni mu toll su ko defee tamit nag ñi nga xam ne ñooy doonu néew bi dañoo bëgg soo xamee ne ni néew bi génn na àdduna rek dañu gaaw ñu fay ay borom nañu gaaw ñi seet ñi ma xamee loon bor ñu fay ko waaye nag nit ki dee ñu bàyyi boroom yi loolu baaxut yonent bi dafay wax ne nafsul mumini muallaqatun bi daynihi hatta yuqdaa anhu imaam ahmad ibnu majah ñoo solo hadis bi mu ne bépp bakkanab jullit dañ koy xaj ci ay borom buñ ko fayee rek ñu door koo xaj ji buñ ko fayu rek ñu continuer fa xaj ko kon nañuy góorgóorlu ci bor yi xam li ñu xamé ci bor bala néew bi ñi di ko fay num gëna gaawé abi nadrata mu ne jëlé na ci sa'd ibn aw atwal mu ne mbokam dafa génn haduna bahi borop ñetti téméri dërëm bam mu lu man ñetti téméri dërëm bàyyi fi njabot mu bëgg ko dundalé njabot gi ñew ci yoonu wax ko yonent déedéet sa mbokk mi dañ ko tecc ci borom de demal nga fayal ko bor yi mu ne makoy fay bam dess ñaari dinar ben jigen ñew ni ma xamel na ma ñaari dinar mané ko an say cédé xamul cédé ma dem ci yonent bi wax ko ko mu ma jox ko ko fa atiha fa innaha muhiqqatun koku imam ahmad moko genné moko solo mune han abi nadrata an sa'd ibn atwal anna aqaahu maata wa taraka thalaatha miati dirham wa taraka ciyaalan fa aradtu an unfiqaha ala ciyaalihi fa qaala annabiyu inna aqaaka maxbuusun bi daynihi fa qaala yaa rasulallah laqad addaytu illaa dinaarayni moom rek iddaathumaa imraatun wa laysa lahaa baynatun qaala fa aatihaa fa innahaa muxiqatun kon nag nañu ragal borde waaye yonent bi sax néew buñ ko mos a andil bala koo jullee day wax ndax am nañu mën a gàddu bor ya bu ko kenn gàdduwut mu ne jullee leen seenam néew kon ilimaan yi luñ yàkkamti yàkkamti bala ñoo jullee néew yi nañu laaj ndax am na bor bu ne waaw ñu ne kan moo gàddu boroom yi koy gàddu nag bu mu nekk ab soo mande nit ñi bari rek nga ne maa gàddu bor yi nit nga tasaaroo nga ne dama doon wax rek su boobaa moom lépp wàcc na ko waaye yow moomu yaa yaa féetewoo lépp. kon bu génnee àdduna tamit nañu gaaw wëyal dénkaaneem yi mu bëggoon nañ ko sang mu gaaw nañ ko sang nañ ko jullee nañ ko rob nu mu gën a gaawee nu mu gën a gaawee gën a baax alquran dafa ne suma amaatahu fa aqbarahu faa la indi te xam nga wal faali tartibi bi tisaali mooy nit ki bu dee rek ca saasa na ngeen ko bamelal yonent bi firi ko ne ku dee bëccëg mu de suba na hendu ci bamelam ku dee ngon na fanani ci bamelam kon nak num gëna gaawé gëna baax daana wax timit ne ñaar jar ñett kon jarta yonum toy wax mu ne waxtu julli bu xasse jot bu ko yexé julil so yoreb jek gis ku ko bëgg gaawal nga may ko bu ko yéexee nit bu génnee àdduna na ngeen ko gaaw ngeen denc ko ñetti yi yonent bi nee na bu ko kenn yéexe Ali ibn Abi Talib moo génnee hadis bi mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala salaasatun yaa aliyu laa tuaxiruhunna salaatun ida aadanat ay xadara waxtuha wa janaasatu ida xadarat wal aymu ida wajadat kuf waaye nag beneen bi mu ne kuf an ji nag mooy ay al maratu alati mata sawjuha idha wajada sawjan yunasibuha bu babu nak ngeen gaaw maye ko ba ci teggu nak moy mu ne bu dit ki genné aduna, na ngeen gaaw ngeen denci ko kon ñetti ken kenn du ko yexé ab neew waxtu julli ku mata am jëkër te gis ku ko soxla mu mat ko nawlé num gëna gaawé bi ne maye len ko kon lu lu jar nay baye xel bu baax a baax a baax aïchatu nee siddiq bako de ñewale bisab altine la génn àdduna te ñaanoon na ko dafa ne woon ngéeju woon naa bis bi yonent bi génn àdduna yàlla na ci yàlla jël ba kanam nam ko ñaanewoon yàlla may ko ko keroog ba muy génn àdduna dafa bàttale ne bu leen ma bu leen ma passé le bis bi na ngeen ma rob tay tay nu mu gën a gaawee ndax man nu ma gën a jegee yonent bi rek moo ma gënal fa in mittu min laylati fala tantaziru ilal gaddi fa inna ahabbal ayami wal layali ilayya aqrabuha min rasulillahi sallallahu wasallam wa Nak teela nag teel denc néew bi lu baakha baax la bu nganta mu dal num gëna gaawé nañ ko gaawa a denc te lool lu baax la legi nak ba lañ denc faaw ñu sang ko sang gi faaw ñu sang ko su ko defé timit faaw ñu ko faaw ñu sédé ko sang gi moy jitok sang gi ak denc gi yoy yëpp fardu kifaya la bu ko ñenn ci xeet wi taxawee rek wàcc na ñenn ña waaye bu ko kenn taxawee wut ñëppay bokk rek am bàkkaar loolu mooy masaabu imaamu Malik Shaafi'i yu loolu la gëm ka ñuy sang tamit di ko sang di ko jullee na nekk muy ab julit su ko defee ka lay mën a sang tamit na fekk muy ab julit rek ki gën a yell bu ñaari way dencante jëkkër mën naa sang jabar jabar man naa sang jëkkër naa Fatima bi mu génnee àdduna sayyiduna Ali ko sang moo ko gën a jege. su ko defee ko dag loolu lañ gën a bëgg Seydina Ousmane moo sangoon Sayyidatuna Ruqayya moom génne àdduna fekk Yonent ba nga dem Badar moo ko sang sang ko jullee ko kon jëkkër mën naa sang jabaram jabar mën naa sang tamit jëkkëram su ko defee ñu seet kilifa ya ay waajuram bu fekkee góor gi góor ya waajur ya sang ko bu dee jigéen tamit ñu seet ña féetewoo wàllu jigéen nga tamit sang ko bu ngànta xamee ci yile yëpp. góor a dee jigéen ñi kese fa ne amuñ ko ko sang wala buñ ko xamee ndox amu fa jigéen ña dañ koy tiimal xar ba ba ca conc ya bu dee góor a jigéen a dee kenn góor ko ñu xarmanteem kenn néew fa góor yi jàmbur rek a fa ne xar ba rek lañuy ñuy téemal ak tikku njara ya su ko defee ñu jullee ko dénk ko boromam yàlla dafa fiir bay fiire nit ku génn àdduna sang na nag dee na nañ ko sàng li gëna bari ci yéré néew buy goor juroomi yéré la dañ ko ci mbubal kalaal ko ca defal ko ci ay mur li nekk ci digënté ju mbox bi ba ca bat ya morso yëpp boko calculer juroom la budé jigen la juroom ñaari yéré gëna bari yalla dafa mandu dafa na jigen da nga bëggoon di sañse rek di toilette li gëna bari ci yéré ngay sol juroom ñaar la ba ngay dund bo dé nañ la ko sangé yow goor timit li gëna bari ci yéré ngay sol dara jaak bak njit la yaak seen ma yaak yëpp juroomi yéré la bo dé nañ la ko sangé su ko defee moo tax li gën a bëri ci yére néew bu bu génn àdduna di góor juróom yére la gën a bëri ci jigéen bu génn àdduna juróom-ñaari yére sàng nañ ko nag léegi li koy des mooy xanu rek bu ko ci jàkka ja commencé tamit seede ya suñ ko seedalee ba pare jullee ko bu fekkee ki dee góor la yow boo koy jullee mën ngaa taxaw ca ndigg la. yàlla du la ko fiire góor la waaye buy jigéen nag yaa ngi taxaw ca mbagg ya yow góor gi jullee jigéen gi génn àdduna taxawal ca mbag ya kon dee ba yàlla sax mi ngi la koy fiire su paree ñi gasal ko pax pax nag la gën a féete kaw ci suuf moo ma yërmande jërul xóotal ba mu jéggi dayo moom daal nañ fexe ba nga xam ne bu nëboon du xeeñ nañ fexe ba nga xam ne buñ ko suulee bawkat yi duñ ko fa mën a fekk di ko sulli ak ay janax waaye xóotal ko ba mu jéggi dayoo tamit nag matu ko kon yëpp moom lañ bëgg ñu koy def yëpp dañ koy def kon am na ki ñoo xam ne kenn du leen sang ah, duñ leen jullee sax ngëneel gi ñu am doy na duñ leen maanaam duñ leen sang ka yi ci aju mooy ñi dee ci xare mooy suhadaawu yi ngëneel googa ñu xam lu rëy rëy la loo xam ne doy na waaye terewul nag koo xam ngaa dee ci lu mel nii eh, eh, ndox mi nga lab dañ la sang de dañ la sang dañ la jullee ku dee ci safara dañ ko def de ku dee ci yeneen tamit dañ ko def de waaye nag ci bu fekkee ne dafa lakk noo xam ne buñ ko sottee ndox mi mu ñoreeku dañ koy sangee ca nañ manee rek waaye duñ ko nangu di ko sot ndox mi ka ragg muy dem di ñori ñaramam wa déeréet ca nañ manee rek dañ ko def fay dugg dafay dugg ci bunta fa taqulaa masataatum su ko defee nag ñi nga xam ne dañuy am xàtteeb ku sahid buñ leen yéegal ci ku sahid waaye ku sahid nag ci xare dem ca deega da fay xam nga ne lu reuy lo xamne dana ko doy sëkk wala yeneen yi nga xamne mo cey cay ingi defal yeneen new yi kon nak lolu nga ne lu reuy reuy reuy ala kulli hal nek lo xamene ni lu am solo la euh, lu magga magga la ñu ci baye xel bu baax a baax baax su ko defé bu ñuy sang new bi bëgguñu ku yore di sang duñ ko ko defal ku yoré deretu gësin timit du sang Ah, ku lab tamit buñ ko génnee ci faw ñu sang ko ñu dund ñu ñoo koy def yooyu lañ koy defee eh, su ko defee kon yooyu nañ koy defal yëpp di ko bàyyil xel ah, ku xamee janaba yàlla dogal mu génn àdduna walla reegal ah kay su génnee àdduna dagan nañu sang ko ah, danañ ko sang nañ bu dee àdduna dañ ko sang ndax yonent waxoon al mu'minu laa yanjisu jullit du sobewu kon nag yooyu yëpp duñ wane ne dafa kon kenn du ko sang ak yooyu déedéet ah kay dañ dañ koy sang. looloo waral moo waral kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama loolaa tëddee ba nga xamee na ni yenentu bi génn na dañ ko sangoon Ali ibn Abi Talib ko sang ak Abbas ibnu Abdul Muttalib ak Fadlu ibnu Abbas ak Usaamatu ibnu Saydin ak Xusum ak Saalihu di mbaa yàlla ak bi sang nañ ko ñetti yoon bu njëkk bi ndox la benn bi si déem su ko defee benn bi ngi door caa def kaafoor ndox ma moom lañ ko sangee moom yonent bi ah, kon nag yëpp bu ñu génnee àdduna dañ koy sangee ñetti ndox dara nekkut ci nañ ko ko defee waaye ku ñuy sang nag dañuy suturaal xawra jale ki koy sang du gis xawra jale dafay wut benn kii rek bu ñu def kii muy dugal ci biir di ragg waaye du sañ a jàkkaarloog xawraay ki nga xam ne mi ngi koy sang donte jëkkëram la wala muy jabaram tamit du sañ a def loola kon nag yooyu yëpp nañ ko daw su paree ñi sàng ko suñ ko sàngee ba pare nag su ko defee nag yóbbu ko ca kër ak mujj ga te fiñ ko xam ne foofu lañ koy war a denc muy këram gu mu ga su ko defee suñ ko fa dencee nag la ca des rek gannaaw jullee na ñaan nañ ay ñaan rek moom moom lañ ko deseel nag am na ci yére yoo xam ne kenn du ko sàngee nit ki kenn du ko sàngee yére weñ kenn du ko sàngee yére yoo xam ne dafa nekk soy suwaayu foor yooyu kenn du ko sàngee néew dañoo bëgg sangaay ga buñ ko mënee na weex moo tax suñ mag ñi daan jël perkaal di ko sangee nii néew yi yonentu dafa wax ne albisu min thiyaabikumul biida fa innaha xayru thiyaabikum wa kaffinu fiha mawtaakum imaam ahmad ibnu hibaan hakim yonentu bi ne sàngee leen de leen sol yére yu weex moo gën ci yére yi bu ngeen bu seen néew yi de leen jël seen néew yi di leen sàngee yére yu weex yi loolu la yonentu bi santaane sàngaay mën naa rafet moo tax suñ mag ñi ne nañ jëlu bees rek nit ki tamit du ko neexee yére yam doon demee màkka ci har nga xamne wëré nako na ko kaaba ga yéré sédé ko mu dox ci safa ak marwa dem ci musdalifa siyaré sa yonantu ba yooya yéré bu déhé man nañ ko ko sangé dara nekkut ca lola sax moy gëna bax bu ko nexé yéré ndan daan juma timit man nañ ko ko sangé dara nekkut su ko défé kon nak sanga ye ngok koy défé bi ak manam jullee gi nag amul rukoo amul nodd amul liqaam amul sujjóot moom daal yaa ngi koy ubbee ci mazhabu Malik tagg yàlla laa ilaha illallahu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir nga julli ci yonent bi julli goo man su ko defee jàng ñaan googu allahuma innahu abduka wa bunu abdika wa bunu amatika kaana yashhadu an laa ilaha illa anta ba ñaan nga jeex moom nga koy digalee ak ñeenti kàbbaar am na ci euh, masaahib yi mazhab yoo xam ne dañuy jàng fatiha moom lañuy def door a jàng ñaan nga moo tax ñuy wax ne ab néew kenn du ko jàngal alquran sax ña leen di tontu dañuy wax ne leen xam ne jullee néew yoo xam ne dañuy jàng fatiha tax alquran la te ki ñu koy defal deena kon loolu njuumte rekk la dara nekku ci su ko defee kon ñeenti kàbbaar la. bu iliman je jume ba heppal na mamum yep sëlmal bu ko ken xaar bu iliman je jume ba mankil buñ ko xaar nañ mottali rek amu diko jema euh sabbal nan ko da nga wajje deret nañ mottali sen bop rek bu fekke dañ la ca raw nga ñew fekk ñu xam ñaari kabaar ñet su fekke bañ julé neew ba dañ ko fa bayyi andi lañ la rawé ak ñaan ya su fekke dañu par rek yëkëti te loolu moo su boba nak kon yow da ngay mengale kabar ya hi ñaan ya rek gàttal ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar lañ la rawee woon mat sekk ñu yëkëti néew ba nga xam ci way li ko may buñ ko nga continue fay taxaw di jullee ya ngay jullee ko xam timo ko ta imam malik fay bañ ñi jullee néew bo xam timu ñuko tim tim nga tim jëm ja mbaga tim la xëpp ci jëm ja loola moy diko di def gannaaw nak jullee gi na am na waxtu yo xam kenn du fa jullee néew jëm jëmono jant bi sox kenn du fa jamono yi nga xamee ne nii jant bi mi ngi fenk kenn du fa jullee néew waaye buñ jullee suba ba ba muy fenkee mën nañ faa jullee néew denc ko fa bu xasee fenk ba muy yor yoree mën nañ ko faa jullee ko fa buñ jullee tàkkusaan ba ba muy soxee mën nañ ko faa jullee denc ko fa dara nekkut ci waaye ñaari waxtu yooyu mooy waxtu yoo xam ne deesut fa jullee néew ku ko fa jullee sax buñ ko dencagut dañ baa mu waxaat jullee ga door koo denc yooyu waxtu dañuy tere ku fa ku fa jullee néew néew mën nañ koo dugal ci jàkka ndax li gën a wér jullee ko fa mooy eh, néew bi laab na moo tax kon dugal ko ci jàkka dara nekku ca Aboubacar Siddiq ci biir jàkka lañ ko jullee Seydunaa Omar ci biir jàkka lañ ko jullee Seydunaa Osmaan ci biir jàkka lañ ko jullee ndax jullee néew bi ci biir jàkka gi dara néewu ca ñu jàpp ne doomu aadama boo xasee dee laabatut kenn waru ko dugal jàkka ñu néew la seen wax ya tamit ñu bari sukkandikuñ ko. kon li gën a ne la not daal mooy doomu adama moom bu deexee laab na buy dund tamit laab na rawatina muy ab jullit loolu la ko yàlla teralee kon nag jullee gaangoog ak waxtu ya jullee gàngook ak niñ koy defee nañ defar sàppe ya sàppe ya jub su ko defee tamit ñu door koo kàbbaaral door koo jullee ca xeeti julli yooya nga xam ne fardu Kifaya la bu ko ñan ña defé ca xéet wa mu wacc ñan ña bu ko ñan ñep kèn defut nak ala kulli hal ñom ñep ñoy bokku am bakkar ci jëf joju nga xamni ni def nañ ko kon nak neew ya ngoog ak li ci haju deexa ngoog wax la ko topal la ko ci am solo nak kenn ku ci nekk ci ñun na fuglu rek ndax dal ci bette rek lay ñew waaye def naa li ma doon def ba mu pare maa ngi toog di xaar dee loolu yombul de moom kay fu la ñëwalee rek dafa la fekk noonu ci betteel loo xam ne na day ñëw te ci betteel lay ñëw soo bëggee noppalu heure bu nekk dee koy waajal rek na ko yonent bi doon waajalee bay wax ne ku yàlla may jant bi fenk la fi na nga limaale sa bopp ñuy xendu ji bu la yàlla suturaalee ba jant bi soxee fi na nga sa bopp ñuy fanaani ku def noona du la bett mukk yonentu yàlla Suleymaan bañ na ko ba jaaro bi mu takkoon dafa caa bindoon la yonentu bi daan wax kafaa bil mawti waaizan dee doy na waaraate doy na waaraate sëkk nag bu dee bëgg nañ ay jege ñaaleem ñu dëkk moom ca quartier ba koñ ba ak mbokk ya dem fa jaale ji ko jaale ji ko mooy dalal ko ci tiis wi dal ci kawam du ko tuddee sax naqar ndax yàlla du def lu naqari ab jullit lu yàlla dogal war na koo gërëm bul waxati naqar neel tiis rek su ko defee nag ñaanal ko yàlla su jege ñaalee ma ne togg ay ñam yóbbul ko ko ndax ñoom dañuy mën a tal duñ mën a togg da waxoon keroog ne nañ togg ñam yóbbul ko waa kër Jaafar ndax ñoom duñ mën a togg loolu tamit ala kulli dañ koy bëgg ñi di ko def jaale ji ko bu baax toggul ko ay ñaan ak la ci haju su ko defee tamit nag ah, waaye jamono ji ngay dee ba pare deele dee ba pare dem wuti nag ñu bëri duñ togg xañ foofu lañuy ñëw jéem marke ceeb yaa la ci lépp yow yaa deelee woon waaye mu jikko sax deelee jënd say gàtt yu dul jeexati dafa di ko ay fan yu kenn xamut bët bu set ba ñu ñuy xëyee ñëw fees sa kër loolu tamit du lislaam xam nit ñaa leen war a dimbalee ci togg ay ñam yóbbul leen ñu mën koo dimbandikoo mu des nag rek jaale nañ la defal la ci li la dal na yonent bi jaalee woon yahud ba tënj mi nag lañ ca yokk lu bari dara bokkul ca boo demee xeet wu ne ak seen a aada ci tënj am na ñoo xam ne seen tënj mooy dootoo tàllal say tànk loolu boo ko defee ñeenti weer ak fukki fan mbaa da nga mën a doxati ñenn ñi ñun doo sangu semaine bu ne àjjuma ngay sangu bu tangore da nga xagn da nga xagn di ak tilim ñen ña ne semaine bu ne ben yon ngay foot bu sa yeri yi da nga tilim di ñen ña ne da ngay dalek paka man nga ci xala nga mu jam la nga fekk sa jëkkër ji di yoy yëpp ay haado rek la teen ji du dara lu bahi tar lu ci cholay ak ci do to sañati toilette yenn toilette yi ba bo rombee goor ñu sàggan ñi seen xel dem ci yaw dem ci yaw loolu lañ lay téré waye ci dess yëpp dara newu ci man ngay teen dem di liggéey dente bureaucrate nga mën nga dem bureau ba di liggéey waye li am solo rek del fanaan kër gi nga ci nga wara a yenn yenn yu gatt yi nga mëna doxé ci soxla dem marché dem togi dem defi nangam yépp mën nga ko waye del fanaan ci kër gi rek waye do mëna tukki nak di fanaan hal bu fekkoon da nga waron de dem makka bañ xol ne apt nga sa jëkër dé do to mëna demati da ngay tok nga tenjiko bu passé nak bu la fi yalla fekkaté nga dem haji boo xasee dem nag ba xegg soobu ci xarmal ñu ne sa jëkkër dee na dootoo bàyyi xarmal ga da ngay continuer rek soo ñëwee nga mottali li des ci tenji gi ku sa jëkkër génnoon àdduna yëguloo ko bi nga koy yëg ak passé na deux mois boo ko yëgee ñaari weer fukki fan rek ngay tenji mottali ko ndax la passé kenn du ko fayati su fekkee bi nga koy yëg ak léegi nag mën na un an dootoo tenjati ndax passé passé na tenji moom ay fan la xam yu sa dee sa jëkkër ji bu xasee paase kenn du ko fayati kon moom jaamu yàlla la goo xam ne kenn du ko fay bu paasee rek paase nañ ca loola kon nag booy téñ ji del tàllal say tànk waaye bëgg a muuru ba muuraale sa nopp yi kenn santul la ko lépp loo xam ne ba sa jëkkër deexagut santoon nañ la ko ba mu deexee rek lañ la continuer sant la ko amul benn changement ba sa jëkkër génnagut dee génnagut àdduna waxoon nañ sa tànk yi nag gàtt ci waqar na fii buyootiku na farata rek nga war a génn booy génn war ngaa xam ni nga war a mën a mel ba sa jëkkër dee moom tamit noonu lay mel ba sa jëkkër dee gud waxoon nañ la ngay muuru yaay ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna bañ la koy sa jëkkër dee gud kon kay danga ngaa war a muuru ba nga xam ne sa cëtténk yi rek ak ma mu mooy feeñ yooyu yëpp dañ la koo santoon ba sa jëkkër gi di gën a goxaat na nga gàtt làmmeñ waxoon nañ la ko bu dee nga war a continuer gàtt làmmeñ gi waaye bu baye keur mo xam ci loyas la wala mo mom keur ga foofa nga wara tenje ñent wer weer ya ak fukki fan bu jexé nak nga doora dem ci fa ngay wara ñibi sa sa keur genn aduna rek ta xam keur nga ne ma ngi dem fa fale sa xàq nga baye ya ko mom dang ko wara def ba pare boko baye nak damay dem fale le moo mo gëna yaatu mo gëna arrangé sa yëfi bop rek la waaye l'islam mom mo la may li boko ko delo delloo xaatee sa la kon loolu lañ bëgg ga di def bu paree tamit nañu bàyyi xel xalal ci jëkkër yi bàyyi nañ koy gaaw a miiraas doom yi jël seeni cër jabar ya jël seeni cër baayam ak yaayam dem ñu ngi dund ñu jël seeni cër kenn ku nit li xaqam ñu jox ko ko te yàlla moo ko siddileel boppam yonent bi daana wax ne li may doy doy doyuma yàlla ci miiraas moom moo ci doy boppam moo ko siddileel boppam mu ne yuusikumullaahu fi awlaadikum ba muy dem bay jeex mën wasiyatin min allah waaye nag loolu lépp waxin la nit dafa xiir ci alal fekkoon ne yonentu moo séddale miraas rek da bàyyi mën naa taxaw fële ne maa ngoro ji woon yaay lu tax ma may tolloog moom comme doom xam na may xam sudus muy xam sudus yaay taxaw fële ne naka laay tolloog bàyyi tamaa am woon boole ko uh, wasin ko nàmpal ko loolu nu mën a xamee doom ju góor taxaw fële ak jigéen jigéen ne lu tax doom ju góor di may xëppal te doom doom rek la seen kol yi am lu ca ne bañ bañ yonantu mi séddale ñu jëlee ci ak texeex di dem safara waaye yàlla mun ko ko bañ sa yëfi bopp la mënoo ca dara looloo waral lépp lu jëm ci wàllu xalaat rek yàlla xam na ni ci doomu aadama yi xiree mooy jël responsabilité boppam séddale ko bañ demee ca màng ya xare ji gañe moo ne maay séddale wa'lamu annama ghanimtum min shay fa anillaahi xumusahu ba ñu dee mu ne maa jël risque maay séddale yusiikumullaahu fi awlaadikum ku may mere booxe ba mere ma sama yoon nekku ci man yàlla maa séddale yàlla na ko ko mere da ngay yendoo ñaaw rek doo ci man dara kon nak motax lepp lu jëm ci halal dom adama dafa ci xir buñ ko bayyi hon yonentou bi séddale ko rek dana am ñuko ci wax luñ ko ci warta wax ba dem safara gis nga ko mangam ma mos taxaw di séddale xumus ba bam jëlee xumus ba séddale ko para di jël ñi demon ci mangama ma way waaye fekk ko famu tok mu foje ko ne ko da ngay séddale ni la démé do mandu yonentou bi ne ko in lam a'dil man ya'dil man suma mandu kuy mandu ndax yeen du gën ma hoolu yalla hooluma ma mu ne maanaam ñi nekk ci kaw suuf yi moom mi ne ci asamaan xóolu ma yéen ñi nekk ci kaw suuf xóolu ko leen ma noonu la ko yonent bi waxee su ko defee nag nit ki xiir rek ne lu tax ngay jox lii lii ñu jox ñii lii ñu jox lii bu miraas demoon tamit borom kër yu bari wala doom yu bari dañ jéem a poñe yonent bi te buñ ko defee rek yàqule doomu aadama moo kër ci xalal ba jéggi ba jéggi dayoo wa uxdiratil anfusu suxa moom la alquran wax kon loolu lépp nañ ci bàyyi xel kon nag lii laa la dëxaloon ci wàllu waajal ku génn àdduna ak na muy waajee moom ak niñ koy waajalee ci sang kook sang kook seede kook jullee ko ak maanaam ña ñam bàyyi gannaaw nuñ leen war a jaalee ak xalal ji mbàyyi gannaaw nuñ koy war a fayee bor ya la ci xaju nag ci miiras ma danaa la ci ñëwal lépp lu ci xaju kon nag in uridu ilal islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu unni wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu